bokk yu baax yi yéen ñi nga xam ne waxtu wi tembe yéenay bàyyi xel Serigne Cissé officiel ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baalu àq waaye di leen baal àq di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla na nu yàlla boole baal defal nu jàmm fii ci réew mi di senegal ak rawatina waa diaspora bi ñëm ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ñaanal yàlla tawfiq ak sutura mu mel ni sunu émission bi ñu gëjoon a ñëwee ci Serigne Cissé officiel mu ñaabu ndaw ak ci dëkk Grand Yoff fa tabaarakallaahu jàngat ba ñu yàlla wonoon ci xam-xam ci mbiru baatin yàlla dogalee na ko noonu kon santaat yàlla na waxu naa leen ne ci mbirum seet lépp loo xam ne mu ngi nu koy wan ñu koy wax ak yéen luñ leen ca wax bu ngeen ko toppee yàlla mën naa def tawfiix na loola dana am yàlla na kenn du ko jiitu ci dara moo tax sëriñ Cissé bu déparee yàlla la bu taxawee it yàlla la waaye bu toogee yàlla la ma waxoon leen ne Sarko gis naa muy waxtaan ak ci làmb ji am mag la ko mag ma déyoon nag yàlla def na ci sutura ma ne ñaa ñaabu ndaw bu ko bëggee daan il faut mu bëggee mu jéggi frontière ndax ci xeetu ngemb ndax nit day am fu muy toll ngembum day dëgër ngemb googu nag pour nit daan ko du yomb deuxièmement ba yéen ñi nga xam ne ba tey la leen di xaar ci Serigne Cissé mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg seetlu muy seetu loxo bi fan yii ku ne ngi woote Serigne Cissé seetum loxo bi seetum loxo bi képp ku bëgg a xam sa mbiru bopp ci sa wàllu wërsëg nga bëgg a xam nan nga war a def ba mu dox fotol sa loxo bi yónnee ma ko bu fekkee ne dañu laa liggéey nga bëgg a xam liggéey dafa nekk ci sa yaram wala nekkut ci wala kan moo la liggéey fotol sa loxo ndeyjoor bi yónnee ma ko man sëriñ si ne taalib sëriñ kër Sy bu fekkee ne dafa am koy bëgg moo xam ko góor kay bëgg moo xam ko jigéen kay bëgg ngeen bëgg xam yéen ñaar ndax seeni mbir ànd na am àndul sëriñ si seen fotol sa loxo droit bi nga yónnee ma ko bu fekkee ne it da nga jóg yoon pour bëgg tukki ndax yoon dañ koy xool doo xëy jël say bagage dem yow mi bëgg a tukki sëriñ Cissé mu sëriñ kër si ne la fotol sa loxo duraat nga yónnee ma ko ñu seetal la yoon wa bu bis ba leeree ñu ne la demal bu la lëndëmee ñu ne la toogal am na mujjandiku ak sarax ya nga war a def bu fekkee yit ne yow ci sa bopp sa mbiru àdduna daal seet nga ne toujours da yéeg ak a wàcc doxul te xamoo lan moo koy téye sëriñ Cissé ne fotol sa loxo droite bi nga yónnee ma ko kon mbirum seet lu ci waay bëgg te kàddu gi doy la jëmm ji doy la wax ji doy la fotol sa loxo droite bi nga yónnee ma ko ma seetal la say mbir ñaareel ba sëriñ Cissé dafa bëri ñuy bind ci sëriñ Cissé officiel sëriñ Cissé kanaa mbirum nopp doo ciy yëngu ma ne la ax ah kay ci lan la ñu nopp dafa am benn gàncax gu ñuy wax gàncaxu ñàppentaan moo nekk nii ma téye bu dee ca saalum na ku ko séen da nga foog ne xaaxaam la te du xaaxaam lii mooy ñàppantaan ñàppantaan nag day dox ci ñaari wuy dencante ñoo xam ne dañoo bëggante dem ba ci biir gis ci seen diggante jafe-jafe te duñ xam lu ko waral sëriñ si ne dafa am benn turu yàlla bu ñuy wax mu ngi génnee fu mu génne sax duñ ko wax ndax ñuy déglu sax sa sun xas sa sun sax sa sun xas sa sun di tur wu bari doole woo xam ne limu anda ak ci ay xuddaam ak rawxan do ko def mukk ak yow wara a ànd ak doo ko def mukk ci ñaari wuy denca ta 24 heures boole wul seen xol man tuné ndax li nga gis ño xamné ndax juboo du fen rek la wara am ño xamné ño bokku ndey ak bay way yalla def duñ mëna ndax say fa jaar len wala saytane man len bañu ñu yow mu yor sa njaboot te ño fexé ba mënu ño fexé ba nek ci benn Serigne Cissé ne boo ma wooyee yow mi woy jur wa dinaa la ci liggéey loo xam ne ci ñàppantaan gi danañu juboo danañu doon benn te seytaane du ci am wàll yow mi nga xam ne it dafa am koy bëgg moom it ngeen di réeroo ci ay kàddu te xamul lu ko waral lit bu tur wi yegsee ci man dinaa la ci defal xam-xam boo xam ne fa tabaarakallaahu yàlla dana leen boole kon noobu gu jooni jooni ku gaaw ku ko ci bëgg da ngay jël numéro bi woo Serigne Cissé mu Serigne Babacar ñu liggéey la xam-xamu bi insha allah loo ci bëgg it yàlla defal la ko tey nag dinaa présenté loo xam ne li tax ma koy présenté du lenn jamono jii ku ne xam ne ne Sénégal neexul jamono jii ku ne Sénégal neex na xamula li ngay wax neexul sëriñ si mu sëriñ Babacar ne ndomba nag dafa nekk ndomba loo xam ne dus gawu la juróom fukki bootal ak ñaar moo ci nekk te bootal bu ne buntu la dana dox ci wërsëg muy luy ubbi say mbir dana dox ci làmmiñ wu bon dana dox ci bët bu bon te tey ci tey boo takkoon ndomb gi fukki nit taxaw ne dañ laa bëgg a gàccal keroog bu ñu waajee ne sëriñ Cissé la bëgg a gàccal yàlla dana leen teg luñ la du talee ndomba gi dina dox ci wërsëg premièrement muy am-am dana dox ci kaaraange premièrement muy mucc dana taxaw ci sa buntum noonu ak yeneen yoo xam ne mënuma koo wax ci biir émission bi muy ndomba gi nga gis Serigne Cissé téye ndax réew mi dafa dafa tàng jël fi mu toll te sama sëriñ ba sëriñ Babacar de daan na wax ne ku muccut doo mos kon avant ngay tal mos da ngay mucc boo muccee ba pare mos ndomba gi boo ko takkee lu nit bëri bëri doole lu nit nit bon lu nit nit soxor lu nit nit añaan cere bu nekkee ci sa ndigg lii yàlla dana la dem nga mel ni jant ci biir jëmmi doomu aadama yi kooka borom bi la ndax liñ ko liggéeyee ay ismulaay ahsam yu wér lañ ko liggéeyee muy ndombaloo xam ne fa tabaarakallaahu yéeme na fi ñuy wàccee suñuy kàddu nag du lenn mooy mbégum kër gi ñi nga xam ne danoo nekk ca kër ga yori soxna te manuñ ci seeni soxna dara sëriñ Cissé na leen mbégum kër gaa ngi nii képp koo xam ne sa kàttan day manqué nga am problème mu siddit am problème mu sëy am problème mu yaram woo xam ne daal fa tabaarakallaahu neexul sëriñ Cissé ne siro baa ngi fii ci wakaam boo ñëwee kër sëriñ Cissé mu sëñ Babacar danañ la ko jox te boo ko weccee ko di ko naan nañ la ko waxee yàlla dana la defal sutura maa ngi ñaan ci réew mi jàmm nag maa ngi ñaan ci réew mi jàmm bu ma ñaanee ci réew mi jàmm ba pare nag danaa jàll ci sama xarit bi wax ji bëri na trop waaye nañ tëj gémmañ yi waaw ndax nag mbokk ndeye koy jur jamaykee man la bokk ci réew mii maay mbokkam te bu bi déparé ñooy bokk dugg oto dem Saalum buñ dajé ci garax ñoro bu jëne mburu kaolak ma jëne mburu kaolak buñ déwé ba pont noir taxagul ñu taxalo kuré wi sarku jamay ke joxnako dara duma fi né sax na nangam joxnako dara kon fim tollu sarko ci ndigeelal jamay ke la né bu kenn yak combat bi ku ko ci yak da nga am lu la naxari te li lay naqari nag dana bayeeku ci sëriñ si ni mu sëñ Babacar ñëw ci yow te doo xam lu la ko teg combat bi bu ko fi kenn jéem a dugal seen ngol-ngol ji na bi Sarko daana laa déggu ñii di taxaw ci tefes gi di wax ñii di taxaw ci digg bi di wax ñii nekk ci diggante bi seen yoon nekku ci Sarko xaalis bi moo mooy bëree moo jël avance ba mooy seet ka ko neex mu bëree moom te jël na avance u sama rakk jii di jamaykee kon combat bi bu ci kenn bu ma ci dégg te làmmañu kenn na tëj seen gemma yi ku ma ci dégg nga wax ci loo ci wartu wax danaa ko attaque wasalaamaaleykum